leen jëf mbokku internet yu bi Pro Média ñu ngi leen di nuyu mbokk yi di leen ziar mbokk yi nag tey ñu ngi Pikine li ñu fi indi nag du du du loo xam ne lu ñu neex la waaye lu ñu bëgg a dox rek euh, yàlla jaarale suñu kàddu mu nit ko yàlla leeral ko mbokk yi xale boobu ngeen dégg ñu ne dafa réer Pikine mu nekk xale bu ndaw yéen ngi koy gis ci image yi moom la ñu ñëw rek euh, seet si bëgg fu suñu kàddu àgg rek euh, bu ñu ci mënee jot ba yàlla leeral ko nit ko ndax euh, ay waajuram ak i mbokkam woo nañ loolu ku fi ñëw danga xam ne ñi ngi ci tiis ñi ngi ci naqar waaye ñi ngi ak bàjjanam bàjjan Olimata bu ne bàjjanam nag moom bàjjanu gox la noonu la taxawaaye fii ci gox bi moo tax nu nuyoo ko noonu bàjjan maa ngi lay nuyu di la jaar. alhamdulilah maa ngi lay fay bu baax a baax a baax di la dalal ci jàmm ak salaam macha allah. di leen ñaanal jàmm di ñaanal waa senegal di ñaanal waa àdduna bi yëpp jàmm macha allah. ni ko waxee ngay bàjjanu xale bi réer moom kañ la réer. Euh, xale bi mi ngi réer lundi ci suba diggante 9h 10h ci leen ko jël fii ndax ku réer day fekk mu dem nga ne dafa réer <coughs> waaye si ni ñu gisee. réerul dañ ko fi jël si biir kër gi hmm. ndax diggante neuf heures dix heures mi ngi toog ak maamam si buntu kër gi si bunt kër gi mooy waral ne si biir bunt bunt bi nii rek du ci mbedd ma ci biir kër gi ci bunt bi noonu la toog ak maamam yaayam mi ngi ci waañ bi di togg man si ay neuf laa wàcc dugg sama biir néeg di woo xale na leen daw leen jënd li ma ndekk na dafa am suñu benn mbokk bu décédé ñu war ko jaale ji mane ne léegi daw leen ngeen xëppoo ñu ànd daw jaale ji balaa naaj bi di tàng mm-hmm. ci la sama papa jógee bàyyi ko mu toog noonu yaayam mi ngi toog si waañ bi di togg léegi mu sama naka la dugg si biir di ndékki di préparé waat pour ñu dem si la suñu benn dëkkandoo daw ñëw mm-hmm. daan ne ndey farma ayda de am na ku ko jël fii si buntu kër gi mu ngi dem mais ndey kii xàmmewuma ko ci biir kër gi de xàmmewuma ko tamit seen famille dama xamul nag mbokk umpaañ la walla waaye bëgg naa ko woo sax waaye xaw ma mbokk umpaañ laam déet mbaay aw na nii ko ñu ñuule bay jàdd ndey na ko lan Aïda ku ko fiy jël rek daal di teg li mu yore moom it duggul sax ci biir kër gi ndax boobu maa ngi ko yónni mburu mais dafa sànni mburu mi am kum ko jox na ko joxal ma ko sama yaay moom mu daw toppi daw na topp nag si koñu ñuule mu ne ko jàdd na ko ñu kolandoo yi mu jàdd foofu wër ba sonn gisul dara mu wiirewaat koñ duggaat ci biir kër gi daal di daw si yaayu xale bi ne ko umpaañ ana Ayda umpaañ na ko Ayda mi ngi si maamam léegi si la demee sam papa ne ko pap papa ngañ ana Ayda mu ne ko ayda de mi ngi foofu si yaayam xam mi ngi noonu toog mm. mu ne ko déedéet nekkul fii de sama rakk bu jigéen bi daal na ko ii ayda mi ngi fii ndax sama caabi sax moo ko yore sama rakk bi même si caméra surveillance bu ñu gis mi ngi si yore dégg naa mi ngi si yore caabi mm-hmm. mu ne ko sama caabi néeg mi ngi si ayda bu réeree commencé di mbalak noonu mu ne leen lu may wax lu sérieux de bàyyi kilaab ñëw na nee na Aida am na ku ko fi jël ba dem na xamul mbokk umpaañ la wala dara moo tax sax arrêté wu ko daw naa nag ba ci koñu ñuule ba ci kalandoo yi gisuma kenn foofu rek laa tëbe bàyyi li may def ma nit sam bàyyi li muy def ma génn ba ma génnee sama benn dëkkandoo laa njëkk a gis mm-hmm. ma ne ko ah ayda la lan la lañ jël fii mu ne ma ayda rek moom it bàyyi lu muy def ànd ak man sam jaar koñ bi ma jaar koñ bi kooku jaar koñu Dominique ñu dem ba tasewaat Dominique ñu xool foofu ba sonn gisuñu ñu i eh, kii bu fekkee nii la jaar de est-ce que jëlul oto ci leen dellu si waat ñoom ñu la mbay ñoom ñëpp dem léegi ñu na ma tey ngaa dem ci borom cuuraay bi ndax soo demee ne ko tànn leen ñu boole rek mu xoolal la ndax am na caméra surveillance ma ne ko ah mu ne waaw ma ne ko ah xaaral ma daw ñu daw foofu kooku tamit daan ne ah man de taw bi démb sax moo tax caméra bi dafa mel ni lu fulu mais amul benn problème dinaa leen xoolal mu xool daan man li ma gis dafa fulu de ñu duggaat ci banque bi Cofina. Mhm. ndeysaan waa ju baax lañ fa fekk. Mhm. ñoom ñëpp yàq seen yitte daal di génne daan amul benn problème dinañ leen xoolal ba xam luñ ci gis ci ginnaaw gi nag la ñu xool gis nag exact kon nu xale bi waxee. ne am na ku xees ku ko yore. koloo kol gu zone aw nii. Mhm. tamit loolu. Cofina ba mu xoolee moom la gis. gis ngeen ko ci caméra yi loolu. gis nañ ko ci caméra mais caméra bi dafa fulu woon. ndax bis boobu xam nga ay deux heures du doon na taw taw boobu nag xam naa moo tax mu fulu wala ndax caméra bu mu ñu woon dafa fulu doo gis kanamu ndaw si exact ah, jigéen moo ko jël ku jigéen la ñu gis mi ngi kolu di def ni woon na gis na ki ko jëlit moom jigéen la gis ku ñu annoncé woon na gis na ku gis na ku ko jël jigéen la wax ne dafa xees xale bi mm-hmm. onze la am si lay toll xale la mais acte bu noble la def ndax daf ko gis rek daw. xam nga bu doon mag. dina ne ko ee eh, kaay nii wala ne mais moom it comme xamul ne euh, doomu mbokk euh, yaay ji wala dara mm-hmm. mais tamit def na ne kii masu ko gis ci kër gi. ah xale la ko gis. ki ko gis xale la. suñu dëkkandoo la dëkkul ci kër gi mais fii lay fréquenté. fi lay fréquenté toujours xam na xale bi xam na xale bi. ci la xam nee na nag mu ne sama doom ji kii ka jël mi ngi geesu mi ngi geesu moom xam naa looloo tax fitam kii mu ne mi ngi gi waaxu nag waaxu yu tàng mi ngi geesu mais ñu daw topp ba sonn gisuñu dara ba léegi nii ba fu ma lay waxee nii gisaguñu dara. leen ci benn nouvelle wala lenn loo xam ne am ngeen ci yaakaar. xale yi dañu ngi topp caméra surveillance yi ndax xale yi comme xam nga rek ñu naan boo dëkkee ci kan bokk ci euh, dëkk tekki sa dëkk baa ko gën mm-hmm. mais wax dëgg yàlla suñu dëkkandoo yi boroom euh, ñu am magasin yi fii mm-hmm. ak banque yi fi nekk mm-hmm. macha allah macha allah ñëpp ñu ngi siy jàpp kon ni ngeen siy jàppee képp ku fi am caméra surveillance may nga xale yi taalal leen seen caméra ñu siy xool am na yuñ siy xool nag ndax xale yi ñu ngi naan ah am na yu ñu gis ba joxaat police police tamit am na yu ñu raxas ndax Matar Dieng mhm. ñaan na borom kofina bi mhm. ne ko comme dafa fulu mhm. mu yónnee ko benn rakkam mi ngi France su defee nag mu jéem ko raxas ba ñu mën a xam kanamu xale bi dégg naa nag ñëw na comme police mooy def liggéeyam yooyu moom ñu ngi ci ñoom ñoom ñoo ko téye ñun dañ ñuy wax rek comme jigéen lañu dal leen rek te toog te ñaan incha allah yàlla mën na def mu ñëw parce que ñoom ñu ngi si avancé waaw dégg naa Matar moom jël na caméra bi ba yónnee ko rakkam xam naa da ko envoyé mhm. léegi nag rakk ji envoyé waan na ko nee na daal alhamdulilah macha allah mhm. ñu ngi ci wàllu faj seet ak yooyu luñ leen ci tegtal wala dara waa tegtal boo tegtal tegtal ku ñëpp a ngi seet sëriñ ji Tiwaawoon tuuba Njaasaan ba Canaba ñépp ñi ngi seet wax dëgg yàlla amul mbokk mu bàyyi amul dëkkandoo bu bàyyi amul jàmbur bu bàyyi ñoom ñi ñuy woo sax te xamuñu leen sax lu dul ci panal yi lañu xamante rekk ñépp ñi ngi seet ñi ngi gëstu di ñu woo ci suuf ñu ne ku ko jël jigéen la waaye am na ñaar ñu laxasu ci ginnaaw ah xaw nag yàlla yàlla rek moo xam. Ah, ñu ne am na ñaar ñu ne ci ginnaaw jigéen ji ko jël. ñi ñi seet yi daal loolu ñuy wax seet yi daal loolu la ñuy wax ku wax rek mu ne kii ko jël am na ñuy laxasu si seen ginnaaw ñu ngi si nag xaw ma nag yow yàlla ñun daal ñu ngi ñaan lu daal di ñaan si barke sëriñ si baax si fi nekk ñëpp te ëmb ñu te xam ne Sénégal mag ñu baax ñi ngi fi mag ñi baax ñi fi nekk nag ñu ngi ñaan si seen kattan lu ñuy ñaan yàlla bu ñaan yàlla tépp ci suñu doom ji di ayda Diagne doomu Saalum jaañ ak soxna Kiné Diop ñu tuddee ko sama rak ñu bokk benn baay ndax papay xale bi mën ak moom a bokk benn baay waaye bu ma yeboon ne mooy sama taaw ndaxte lu naan mag taaw ci kër ku xale bu ci juddu rekk yow yaay doomam te xale yi ñooy samay taaw samay doom ñooy seen doom ñun noonu lañ suñ papa yoree si biir kër gi ñun ñoo bokk ndey ak baay xàmmewuñu kii kii moo ko jur wala kii moo ko jur amul Saalum ñoo bokk baay waaye amul mbindeef bu nu tàqale ne sama yaay juru ko ndax ba mu ferem soow maa ko daa euh, ngóone ja moo daan boot di indi man maa daan boot di delloo ba léegi nii ñu bokk ma lay ñaanal nag sa doom ji yal na la ko yàlla ci si barke baabu kër si ci barke mag ñu baax yi si dox ñëpp si barke sama doom yi si dox ñëpp ak soppe yeeg àndandoo ndax monde bi laay wax mm-hmm. ñëpp ay seet ñëpp si dox ñëpp ci wax wala at xale bi ak genn wàll matagul ñaari at ndax ku ma wax ne ma ku réer sama kër mën a la ku ma doon génte ku ma doon génte kon nga xam ne ndax xew moom moo fi mujj am ci kër gi kon nga xam ne yàggul macha allah waaw ku ko gis ci photo bi nag mm-hmm. da naan am na ñaari at mm-hmm. ndax baayam lu mu for xale bi la ko jox wallaay la azim lu mu fu dama naan ko kii lekk gu baax lekk gu bon xam ko dafa jël turandoom lu mu for doomam la ko jox ak jabaram ak waa këram macha allah ma lay ñaanal si barke sëñ Babacar si yal na yàlla nit ay da jaañ ba mu dellu si waat si suñuy loxo. Euh, mbokk yi ni ñu ko waxee euh, xale boobu réer pikin ñi ngi ñaan rek ni ñu ko waxee yàlla na ko yàlla nit euh, ku seetaan vidéo bi pour nga mën leen a jot boo ko gisee ak foo mën a nekk mën ngaa woote ci 77 848 14 20. 77 848 14 20 boo ci wootee di nga jot ci ñi nga xam ne ci famille bi la ñu bokk ñoom tam ñu ciy sonn ba léegi ñuy ñaan nag yàlla na ko yàlla nit ci barke Serigne Touba kooku xale la ay mbokkam soxla nañ ko ay waajuram soxla nañ ko xamuñu lu tax loolu xew waaye ñi ngi naan daal yàlla na ko yàlla nit mu feeñ ba dellusiwaat ci ay mbokkam jërë ngeen jëf.